où durant ces trois années, nous allons intervenir sur les 19 euh, communes de Dakar. Pour ne pas dire les parce que la 19e, euh, c'est une île, de Gorée, sur les 18 communes. Euh, la collaboration des des communes pour disponibilité et pour leur pragmatisme. Présenter nos excuses aux populations pour les désagréments et dire que durant ces trois Nous allons construire des routes, aussi bien en goudron et sur des zones où il y a des problèmes d'assainissement, nous allons y mettre des pavés. Euh, et je voudrais euh, dire que euh, durant ces trois ans, nous allons mettre l'accent sur les grands axes. Nous allons euh, faire en sorte de pouvoir contribuer à l'amélioration de la fluidité euh, euh, de la circulation. Et nous allons aussi travailler à faire en sorte que certains quartiers soient désenclavés et que certains axes deviennent des axes de, euh, de fluidité mobile. Alors, le projet est estimé à combien de francs Alors, sur les trois ans, la ville de Dakar va engager 15 milliards 300 millions. Donc, chaque année, nous allons mettre 5 euh, milliards 100 millions. Donc, actuellement, nous sommes euh, dans les communes de Grand Yoff, la commune de la Médina, la commune de Mermoz-Sacré-Cœur et la commune de Anne-Belair. Et euh, les autres communes, bien sûr, nous verrons. Mais je voudrais surtout mettre l'accent sur ces sociétés qui euh, interviennent sur le réseau urbain. Prendre à témoin euh, la Géroute et la préfecture de Dakar, <coughs> excusez-moi, pour dire que euh, on ne peut pas accepter qu'en milieu urbain, des concessionnaires cassent la chaussée pour y mettre leur réseau, que ce soit des réseaux euh, d'eau, d'électricité ou de téléphonerie, et que ces gens refusent de, de, de réparer euh, ces routes cassées. Et je voulais vraiment interpeller aussi bien les sous-préfets que le préfet de Dakar ainsi que le gouverneur et aussi interpeller la Géroute. Il faut qu'on comprenne que pour construire un pays, euh, il faut que les gens acceptent d'assumer leurs responsabilités. Il n'y a pas un pays au monde qui se respecte où une personne physique ou morale peut se mettre à casser des routes en plein jour pour y mettre son réseau et considérer qu'il n'a pas à réparer la route derrière. Euh, faites, mais que ces concessionnaires comprennent qu'à partir de maintenant, à Dakar, quiconque casse une route pour y mettre son réseau et refuse de la réparer, son réseau sera déterré. Ça ne peut pas continuer. Et Parce que c'est et euh, c'est un manque notoire de civisme que de voir des gens aujourd'hui casser des routes pour y mettre leur réseau et ne pas prendre en compte le cadre de vie, causer des désagréments aux populations, défigurer les quartiers et considérer qu'ils n'ont aucune responsabilité envers tout cela. Okay. Alors, euh, depuis le démarrage du projet, est-ce que vous avez un sentiment de satisfaction par rapport à ce qui a été fait Un sentiment de satisfaction, euh, oui, dans l'ensemble. Euh, quelques retards euh, dus à certaines sociétés euh, défaillantes, mais malheureusement, ce sont les faiblesses du code des marchés. Il y a des sociétés qui euh, compétissent sur des marchés où ils n'ont pas les moyens ni euh, financiers ni l'expertise pour exécuter des marchés de cette nature. Et malheureusement, on n'a aucune possibilité de les écarter de ces marchés. Donc ce sont les seuls désagréments que nous avons. Nous nous, pré nous présentons nos excuses aux populations euh, par rapport à certains retards euh, qui ne sont pas euh, de notre responsabilité. Malheureusement, quand une société gagne un marché et que elle en bonne et due forme et n'est pas capable d'exécuter le marché. Ça cause énormément de désagréments à mais aussi de notre côté, au niveau de la mairie, ça nous euh, En concerne le financement, c'est un financement de la ville de Dakar ou ce financement est un financement exclusivement euh, mobilisé par la ville de Dakar. Et euh, comme j'ai déjà dit, nous sommes aujourd'hui à la phase de nos grands chantiers. ce marché en fait partie. Le marché de l'éclairage public aussi, qui est un marché clientèle, en fait partie. Nous avons aujourd'hui lancé le marché des terrains synthétiques. Marché aussi les jardins publics, sur les 57 jardins publics, euh, ce marché aussi euh, va démarrer euh, incessamment. waaw ah, ginnaaw bu ñu sant yàlla dañ ñëwoon tey pour defi ah, visite de chantier ah, di jëkk jaajëfee maire wu 19 communes Dakar yi parce que tey xam ngeen ko lépp lu mairie Dakar di liggéey da koy liggéey ànd si ak maire communes yi donc leen di jaajëfee bu baax a baax leen di jox seen wàccuwaay leen di encouragé ñoom tamit parce que ñoom tamit ñu ngi béy seen waar donc marché bi mooy lu ñuy woowee ci tubaab marché clientèle Euh, daanaka marché bi dañ koy exécuté ci ñetti at marché bi euh, mi ngi toll ci quinze milliards trois cent millions donc at bu nekk ville de Dakar di dugal cinq milliards cent millions euh, lu ñuy liggéey mooy ay tali yenn tali yi dañ koy liggéey ci daanaka utiliser goudron mooy fépp fu assainissement am fu assainissement amut mooy lu ngeen di gis nii mooy pavage dañuy teg pour ndox bi mën a infiltrer wu donc pour l'instant ñu ngi ci commune Grand Yoff ñu ngi ci commune Mermoz Sacré-Cœur ñu ngi ci commune Hann bel ak ñu ngi ci commune euh, Médina donc euh, ci ñetti ati yi dina allah dinañ euh, couvrir dix huit communes yu nekk biir Dakar parce que dix neuvième commune bi mooy Île de gore donc luñ ci jublu daal mooy ci gàttal góorgóorlu ba yenn gox yu nga xam ne nii dañu xaw a enclavé ñu mën leen désenclavé ñu mën a créer ay yeneen tali yi nga xam ne ni day nekk des des routes de circulation mu mën a améliorer. flui fluidité wu circulation bi euh, yenn tali yi dañ leen di dañ leen di tabax entièrement yeneen yeneen ni dañ leen di dañ leen di réhabilité dañ leen donc euh, lu may ñaawlu mooy surtout société yu nekk ci biir dëkk bi di euh, liggéey di intervenir ci réseau routier bi moo xam na seen dañuy liggéey ci mbiru ndox wala ci mbiru courant wala ci mbiru téléphonie di toj tali yi di daji tali yi dugal seen réseau te bañ a bañ a liggéeyaat tali bi foofu dañuy duut baaraam autorités yi particulièrement Ageroute euh, wax la ñu xalaat seen taxawaay parce que ku bëgg tabax réew daanaka day ànd ak disipline ànd tamit ak respecter la loi euh, képp ku nar a laal voirie yi moo xam voirie yi classée wala bépp voirie bu mu munti doon da nga nar a déposer caution ci Ageroute donc ñu ngi ñaaxaat Ageroute nañu xalaat seen taxawaay di interpeller tamit autorités déconcentrées yi moo xam sous préfet yi moo xam préfet yi moo xam gouverneur yi lu ñuy def nii mënatul continuer ma bëggoon tamit euh, wax ji leer à partir de maintenant képp ku fi toj tali bi Dakar ñu ngi lay ñaax ci yar ak nga dak nga liggéeyaat tali bi nga toj soo ko defulee tamit lépp lu nga fay liggéey dinañ ko déterré sànni ko parce que fekk nit ki ak alalam yàq alalam euh, dugal sa réseau dem sa yoon loolu ci gàttal ab yebel la donc ma bëggoon wax jooju leer képp kuy intervenir à partir de maintenant ci réseau Dakar maa maa maa ngi koy waxaat di ko biiralaat bu baax a baax ku fi toj tali na ko defaraat parce que moom la yoon santaane euh, dugal sa réseau bàyyi ko noonu dem sa yoon day causer ay désagréments day euh, day indi surtout pendant la période hivernale day créer ay désagréments yu yu xaw a jéggi dayoo donc euh, di jógalu nag askan wi bu baax a baax par rapport ak désagréments yu ñëw am si ci ñetti at yu ñëw mais lu ko waral rek mooy jéem a góorgóorlu ba dakaar amaat beneen melokaan donc euh, kii dafa bokk ci projet yu mag yu ñu entame am na tamit euh, projet éclairage public bi am na projet wu jardin euh, terrain synthétique yi am na tamit projet wu 57 jardin public yi donc entre autres projets yooyu daal mooy projet yu nga xam ne ni fu mu nekk nii daal ñu ngi def suñu kéem kattan ba <coughs> man ko démarrer mën ko àggali ci jàmm ak salaam. waaw coût bi daanaka. ñetti at yi ville de Dakar euh, dina dépenser lu toll ci quinze milliards trois cent millions te budget boobu yëpp c'est un budget mobilisé exclusivement par la ville de Dakar. Merci. Merci. Le maire de Grand Yoff. Ils disent deux mots et on y va. Baax na, c'est bon. Baax na. 4 heures yi c'est bon. alors la commune de Grand-Yoff quels sont les points qui sont concernés par ces travaux et ils sont elles sur combien de kilomètres? pour le moment, peut-être euh, on a visité quelques chantiers qui tournent autour de 1 à 2 kilomètres. Mais avant tout, je remercie d'abord le maire de la ville de Comme vous le savez, les communes n'ont pas, les moyens pour construire ou réhabiliter des routes. Mais avec la ville, on a pu aujourd'hui bénéficier de presque de 15 km de route dans notre commune. On a démarré les 2 km et ça reste les 13 à faire. Monsieur le maire, merci beaucoup parce que c'est grâce à vous qu'on a pu aujourd'hui réaliser cela. On est très content, très satisfait et nous prions Dieu pour, pour que vous continuer sur cette même lancée. Alors c'est vous que j'allais interpeller. interpellé c'est l'incivisme des populations. C'est vous qui habitez dans la commune. Qu'est-ce que vous avez comme message à l'endroit de ces populations de Bon, il faut que nous, que nous soyons responsables. La ville de Dakar, comme la commune, travaille pour les populations. C'est la population maintenant de tout faire pour préserver ces travaux-là. Bon, c'est cette étape-là que je voulais lancer à la population, d'être très responsable et de préserver ce qu'on est en train naka nga gisee déjà liggéey bi ñuy amal fii ak ñaata kilomètres lañ maire Dakar parce que bu doon maire Dakar ñun mënuñu def lii on a parlé mooy amuñu moyen def ko mais maire Dakar moo dellu si gafaam pour dimbale commune Grand Yoff am nañu 15 kilomètres ñu war def route et puis pour préciser dama ko fàtt si français bi mais du rek les nouvelles cités projet bi ça concerne les nouvelles cités Grand Yoff traditionnel. mais comme fee daa am problème assainissement pour le moment ñu préféré commencé ko si nouvelle yi en attendant ñu régler problème assainissement bi maintenant si loolu deux deux deux kilomètres la ñu commencé mu des quinze kilomètres di waraat sant ak gërëm rek parce que ko defal loo mënut da koy sant gërëm ko te lu ñuy defal nii mënuñu ko monsieur le maire au nom de tout la place de Grand Yoff merci beaucoup parce que fu may jeexal mooy tali bii nii tali la boo xam ñëpp fiy jaar te ñun Grand Yoff ñooy choisir yan tan la ñu war a commencé ak ñu warul commencé bu ñu ko commencé bu ñu ko choisir xam na impact bi merci monsieur le maire leneen li mooy euh, askan wi dañ leen di defaral ay ouvrage waaye duñ ko toppatoo toppatoo bi day des maanaam incivisme population yow nga xam ne yaay seen maire nga leen di dégg ñoo war a nekk responsable xam ne li ñuy defar du pour ñun pour ñoom la ñu mun ko sauvegarder defar ko ba nga xam ne bu ëllëgee ku fi jaar doo wax waa Grand Yoff jaruñ